Khady Sakho ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay bu baax. ngay secretaire général association journaliste en santé population et développement euh, ngeen bokk ci task force bu euh, campagne avortement médicalisé bi nga xam ne jamono ji Sénégal euh, moo ngi fii tey kan ngeen yaakaar ne moo war a bénéficier ci avortement médicalisé ñan ngeen ci tënk. Euh, li ñuy jàpp ne damay fàttali ne association des journalistes en santé population et développement bi nga xam ne ma nekk secrétaire général bi mm. dafa bokk ci benn task force task force boobu moo la ñuy woowee comité de plaidoyer maanaam benn kuréel boo xam ne ñaar fukk ak ñaar organisation de la société civile boo xam ne am na ci parti parti liggéey yépp mm. am nay juriste am nay parlementaire am nay magistrat am nay journaliste am nay médecin mm. ñoo ko boole ak ay religieux même association religieuse yoo xam ne ne ñu ngi ci ñoo créé li ñu naan comité de plaidoyer pour l' accès à l' avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste mhm. euh, donc c' ça. Mhm. Mhm. tey ñan lañ ci tënk maanaam tey bu ñu demoon tey ba àgg ca ñan ak ñan ñoo ci waroon na bénéficier. en fait avortement médicalisé bi dañ ne xale yu ñu siif xale yu ñu siif ak ñi nga xam ne ku leen jege moo leen tëddee. maanaam sa papa sa mag sa nijaay inceste ak viol la ñu wax xale yooyu. bu ñu ci jëlee ëmb ñu mën leen autoriser c'est le terme est important dafa am sens ci wax ji ñu mën leen autoriser ñu def avortement médicalisé hmm. waxuñu beneen femme waxuñu beneen avortement ñooñu nga xam ne nii juge bi nee na ñii dañoo violé dañ leen a wala ku leen jege moo leen tëddee koo xam ne nii affaire yi bu jaaroon ci yoon waru leen a tëddee moo leen tëddee ñu jëlee ci ëmb ëmb yooyu nga xam ne dañ leen ko forcer ëmb yooyu lañ ne xale yi bu ñu bëggee hmm. du force de même bu bi amoon yow yaay bëgg ne man dama ko bëgg a dindi ñu soog la ko autoriser. Mm-hmm. donc du loo xam ne ni dañ koy ñëw def ko mu systématique ku bëgg rek nga def ko. Mm-hmm. ngeen nekk ci campagne bi door ko euh, kañ ngeen ko door ak. Euh, euh, campagne bi door nañ ko février dañ ko commencé ci xarala yu bees yi maanaam réseaux sociaux yi. Mm-hmm. ci mois d'août bi ñu commencé ci média yi ci télé yi ak ci rajo yi. ak ak site internet yi. da foog naa ñu ngi ci ba feek euh, octobre ñu ngi ci campagne médiatique bi campagne digitale bi moo njëkkoon. Mhm. coow li ci mhm. am nan ngeen koy nan ngeen ko jàngatee ak nan ngeen koy dundee. coow bi xam naa moom kii bi rek la thème bi moo demee noonu te coow du ci ñàkk ñun dañ jàpp ne coow bi sax su ndam la ci ñun parce que campagne bi li ko tax a jóg mooy na ci ñëpp wax. Mhm. parce que bu ci ñëpp waxee ba ku ci ne di ci sa bopp gëstu sa koñ maa nga gëstu sa mbokk maa nga rakk wala wala sa jarbaat wala sa dara nga ne ah lii de mën naa dal samay doom mën naa dal sama jarbaat mën naa dal sama rak sama mag di ne ah lii de kon war naa cee dugal sama xalaat war naa xool affaire bi lan la wundu pour li ñuy wax bu dee yenn na maanaam ma mën cee jàpp ñun jàpp nañ ne coow li mu ci bare nii ndam la ci ñun parce que campagne bi biñ koy door dañ ne nañ ñu waxtaanee affaire bi ba nit ñi xam xam ci seen njëriñ ñoom ñoo kiy songal seen bopp mooñ ci arrangé moom lañ ci bëggoon te foog naa ne fi mu ne nii li li Youssou Ndour waxoon rek bu fi yemoon sax mu neex. 2013 ba tey yéen a ngi gàddu boobule xeex tey Sénégal ndax jàpp ngeen ne pare nañu euh, pour ànd ak yéen ci biir xeex. Sénégal foog naa ci benn monde la nekk. Mhm. bari na ay dëkk yoo xam ne loolu am na fa dëkk yu ñu jege. Mhm. ay Burkina ay Tunisie. Mhm. dëkk yoo xam ne nii ay ay pays africain lañ jege ñu bokk ñun ay làkk. te am ñu loi boobu même Guinée bi gën a ndaw bi sax Guinée bi nga xam ne nii moo ñu gën a moo dend ak ñun sax Guinée bi dend ak ñun ñi sax loi boobu am na fa temps yee passé façon boobu xaw ma exactement loi bi lan la mais dama ne la dëkk yi ñu gën a jege waruñu di làkk français nekk ay pays africain comme ñun disposition yooyu sax am na ci seen biir ay loi kon Sénégal warul nekk moom des ginnaaw des ginnaaw bi dañoo jàpp ne nit ñi dañoo xamagul li ci nekk ak seen njëriñ bi ci biir ndax victime yooyu aussi ci ñun lañu bokk donc dañ leen a war a gëstu bàyyi leen xel pour xool aussi Sénégal li mu li muy signé ci biti protocole yeeg charte yeeg convention yi daf cee bari du lii rek daf cee bari façon yooyu yi nga xam ne dañ koy signé ba pare bu ñëwee ba ci biir duñ ko dugal suñu loi loolu dong la ñuy naan mais mooy biir loi bi ñu soppi ko ba victime viol ak inceste yi ñu mën leen a autoriser avortement médical. diiru campagne bi ak lan ngeen ci fixé wu comme objectif. en campagne bi objectif bi rek mooy mooy li ma la wax léegi nii bi may daaneel dañ dañu bëgg nit ñi xam nit ñi xam jox leen information yépp bañ xam ne ne lii nii njariñ mu ngi ci lii nii waxuñu ku jóg avortement dañ ne victime viol yi ak inceste ba nit ñi xamal ko seen bopp foog naa nit ñi bu ñu demee ba xam ko nit doo gis sa njariñ di ko bàyyi mu dem nit ñi bu ñu demee ba xam li ci nekk yépp foog naa du soxlaati sax nit ñi di ci wax di ci waxaat état bi euh, bi comité de plaidoyer bi demee ci moom ñoom dañ ne. da ngeen dem convaincre communauté bi communauté bi mooy décider communauté bi bu demee bam am adhésion communautaire je pense que loi moom Sénégal ñun fort nañ ci bind ay loi ak bind ay kayit bu communauté bi d'accord am xam-xamee bu ñu demee foog naa loi bi du soxla sax société civile bi di ko porté yi foog naa état bi dina di indi loi bi teg ko jaarale ko fi mu ko war a jaarale. ci communauté boobule mu am ay relais tey jii bokk na ci autorités religieuses yi euh, ndax jot ngeen waxtaan ak ñoom ci édition deux mille vingt et non 2021 bi waxtaanuñu ak ñoom mais je pense que euh, comme comité bi dañ ko teg depuis 2013 jotoon naa seeti ji ay ay ay autorités religieuses. Mm-hmm, mais autorités religieuses yooyu noonu man man bokk ma woon ci ñi demoon. Mm-hmm. mais dama jàpp ne loolu premier pas rek ndax wax ji comme Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne dafa dafa accroché wu torop dañoo dañoo gëm suñu diinee mm-hmm. c'est une société religieuse. buy muy tey muy suba il faut ñu dem gis ñooñu il faut ñu dem parce que ñooñu ci communauté bi lañ bokk mhm. bu ñu paree ci communauté bi je pense que ñooñu ay leader la yoo xam ne nii war nañ leen ci mën a boole mhm. xëy na nag dinañ tegal stratégie dinañ xool yan anam ñoom lañ leen ci boole mais lu ñu war a lu ñu war a def la parce que Sénégal mënoo fi def dara bàyyi diine. te yan mooy jafe-jafe yi gën a euh, tar. ci yoon wi parce que ne nga ko euh, wax nga ko yàgg na deux 2013 ba tey yéen a ngi mené combat bi euh, ñu gis ne à chaque fois dafay am euh, fu muy fu muy heurté wu tey obstacle yi yan la. obstacle yi je pense que obstacle yi yëpp ci mbiru diine la mais jàpp nañ ne même nitu diine yi ci yow ci ñun la ñu bokk bu ñu demee ba nit ñi xam-xàmmee foog naa ñoom sax mën na ñëw ku ci ne fa nga nekk mën ngaa convaincre yow. yow fi nga bokk mën ngaa wax ak kii wax ak kële parce que Sénégal tamit moom diine bi dafay am solo muy diine catholique muy diine muy dine jullit yi mhm. muy yeneen façon diine yi muy communauté yi muy tradition yi sax muy religion traditionnelle yi foog naa à un moment ou à un autre il faut ñu dem seeti leen boole leen ci parce que plaidoyer bi aussi ñëpp la war a laal information bi fépp la war a dem tey am na ay organisation wala sax am na ay euh, kilifa euh, diine yi nga xam ne déjà ñoo ngi taxaw euh, xeex taxaw temm ne du ca dal ñoom nee nañu ay lobby sax ñoo nekk ci ginnaaw organisation yooyu li nga xam ne ñoo ngi bëgg ñu daal di reconnaître fii avortement médicalisé lan nga am pour wax ci loolu. foog naa lobby moom nekkul lobby ñun ñëpp ay sénégalais lañ engagé wu ci li ñuy def parce que dañu jàpp ne ni lii droit fondamental la. jigéen lii dafa bokk ci ak ak yelefu jigéen ñi ci biir famille yi ci biir kër yi ci biir koñ yi da ngay gis ay dund ay femme ay ay muy muy njagamaar yi muy jigéen ñëpp wax dëgg yàlla ñu am ay dund yoo xam ne ni day métti seen àdduna day yàqu ndax loolu viol ak inceste nu mu mel ak traumatisme yi mu lay bàyyee foog naa du benn lobby suñu engagement personnel la parce que benn enjeu moo ci nekk li ne ci ginnaaw lépp man je que mooy bien-être mooy santé mooy développement jigéen tey gis nañu viol ni mu demee xeex nañ ko ba doo am na léegi luwaam euh, tey loi bi euh, bu demoon tey ba jàll assemblée nationale ba ñu accepté ko ndax foogu leen ne dina indi tamit wala sax dinañ ci nemmeeku ay pëccëxoo euh, ku ci nekk mën naa jóg indi ay justificatif am ne man dañ ma viole wala man dañ maa lii wala man dañ maa lii pour rek mu mën a avorter. foog na loi boobu bu dee dafa am réforme. Hmm. loi bi bu dee dafa nar am réforme pour dugal. parce que mën naa rappeler ne Sénégal avortement médicalisé autorisé nañ ko mais bu dee jigéen bi ëmb bu continuer ëmb bi bakkanam daf ciy des loolu ñetti médecin ñoo koy bind signé ko ñu soog ko juge bi soog ko autorisé kon xam nga avortement am na Sénégal ci biir loi bi ñun dañu bëgg loolu des ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy jóg di avorter fu leen neex ñuy yow loolu na des Sénégal na continuer di tere avortement mhm. mais victime de viol ak inceste yi ñu autorisé leen ñu autorisé leen avortement médicalisé je pense que loi boo koy def di nga teg ay garde fou di nga teg ay kiiraay yoo xam ne nii ba benn prox ndoolu du ci am foog naa loi Sénégal bari nañ ay loi yoo xam ne def nañ ko bari nañ ay loi yu demee noonu mais dinañ fexe ba benn prox ndoolu du ci am ba képp kuñ nar a autoriser avortement médicalisé daf ñuy wóor ne ak juge bi day teg ne kii viol dañ ko violé mu jëlee ci ëmb wala kii inceste la mu jëlee ci ëmb ndax seen xeex bi ay député wala ay ay leader politique ñoo ngi ci ginnaaw. waaw je pense que ñun bari nañu ay alliés bari nañ ay alliés am na ay parlementaires ay anciens parlementaires ay nit yoo xam ne sax duñu bëgg ñu tudd leen mais dañuy nekk di ñoom ay alliés lañ dañuy jàppale campagne bi boo loo mënti def dañ ci indi seen xalaat indi ci sottanti yow ak xalaat parce que dañu jàpp ne affaire bi affaire de droit la affaire de santé la affaire bien-être la affaire de développement la. ngir jigéenu Sénégal. Mhm. Khady Sakho ñu lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf may fàttali ne yaay secrétaire général association journaliste en santé population et développement euh, donc bokk ci task force bu campagne euh, avortement médicalisé fii ci Sénégal jërëjëf. campagne campagne bi mu ngi tudd wuy wàllu wuy wàllu ci olof boo ko déggee foog naa. tur bi rek jarul ñu koy tekki. Uh-huh. nañu wuyu wàllu ñi nga xam ne nii dañ leen a dañ leen a sàkk wala ñi nga xam ne ni ku leen jege moo leen tëddee. Uh-huh. bonne chance.